rahmatullah wa barakaatu maa ngi leen ñëpp di nuyu élèves yi en di nuyu caméraman yi ak euh, ñëpp ñuy seetaan si chaîne man la Djiby Camara entraîneur u Symbiase Karaté Club donc lu waraloon euh, émission bi maanaam dañuy am euh, benn compétition bu ñuy def incha allah bi ñu si yàlla yóbbu le octobre bii di ñëw. Nous sur première édition compétition ou h bi à donc cité Sonatel Malika terrain basket en face à mosquée Inch'Allah. Donc la première compétition Nous avons ko la compétition compétition compétition bu neex lay euh, fédération sénégalaise de karaté avec ligue Dakar comme ñun Dakar donc mënuñu dem sans fédération en même temps lutte Dakar donc ñi ci woo suñu mbokk karateka yëpp ñi ci woo club yi nekk si côté si zone Thiaro Yeumbeul Keur Massar ñu ngi leen si woo di ci Sénégal di ci woo région yëpp euh, di ci euh, le euh, président fédération en même temps di ci le tamit président Ligue de Dakar Beskaay Diop moom la ñu ne compétition bi d'ailleurs euh, ñu ngi ci lancement yi quoi di tàmbali di nekk ci liggéey bi daanaka liggéey bi ñun ñëpp la ñu ñoo bokk équipe bi donc ñu ngi ci liggéey boo xamante ni du liggéey bu yomb nag du liggéey bu yomb parce que liggéey bu jafe la comme donc mënu soo dugg ci compétition vraiment bëgg nañ def compétition boo xamante ni euh, ku fi ñëw ku si ñëw compétition bi li nga xam ne compétition bi compétition bu bu am niveau la en même temps compétition la tamit boo xamante ni bu ñu préparé la quoi vraiment waxtaan nañ ko ñu ñu ko war a waxtaaneel ancien simaraaj yi ñi nga xamante ni ñoom ñooy euh, magu dozo yi waxtaan nañ ci ak ñoom waxtaan nañ ci ak euh, ñi ñëpp ñu si war a waxtaanal donc ñu ngi si liggéey bi daal vraiment loolu la woon euh, chaîne bi ñëw defal ñu reportage ñu def ay entraînement donc mu jël euh, image defal ñu euh, reportage mais balaa mu doon neex nag euh, nga ñu interviewé tamit ah. gis autorité yi nekk Malika voilà waaw ñoo ngi ñoo ngi ci ñoo ngi ciy liggéey voilà ñoo ngi si liggéey quoi comme Daouda bi sama ginnaaw ak sensei Amadou Sall ak Bamba. donc ñooñu ñoo ngi ñëw ngi ci donc commencé nañ si di si def ay jéego mais kiiaguñu daal donc xuusaguñu ba ci biir. voilà ubbeekagul. waaw ñu ngi leen ci woo ñu ngi ci woo autorité Malika yëpp particulièrement maire taal Gadiaga n'est-ce pas mooy maire bi ah voilà ñu ngi ci woo maire Talla Gadiaga vraiment mu ñëw jàppale ñu si édition bi parce que li karaté la.

booy seen temps defaa fois du leen may ñuy ñëw entraînement lu bare bare bare mais li ñëw li nekk saal bi ëpp na lii ëpp na lii foofu sax mais comme léegi jot jot yombul nit ñi dañuy guddee wàcc moo tax peut-être lii li xaw ñëw tey mais daana ñëw lu ëpp lii. waaw diplôme yi keroog dañu defoon euh, passage de grade dañu defoon passage de grade waaw léegi booy la ñuy gis nga sànq ba leen takkal seen tri voilà ceinture yooyu noonu lañ passé quoi mooy ñi ngi gis koo gis mu takk ceinture rek daanaka nekkoon na ceinture bu gën a suufee ceinture boobu. voilà voilà orange lañ la woon waaw zone yi zone yi ngay gis ñu ay blanche lañ woon orange kii nii jaune la woon verte bi orange orange la woon voilà ak buñ paree ñu jox lañ seen i diplôme quoi. ki war a wax waaw ki war a wax ki war a wax man kay. waaw mu ah. <laughs> man la Amadou Sall nekk Simeraaji kët si Simeraaji waaw noonu la demee yàlla bu baax na. seen yoon ah, sant yàlla la seen sant yàlla rek nit moom su la ñëwee seet si moom il faut nga defal ko loo xam ne su ko yóbbee pour ëllëg a tax ñëpp suñ ko gisee dinañ xam ne simaraaj yi kat tooguñu rek di dégg simaraaj yi simaraaj non simaraaj yi mi liggéey noonu la demee nag moo tax. bëriwul lu ma war a amul promotion boo xam ne gars yi ñu bëri war nga xam ne salle bi nekk na restaurant pour nit boo bëggoon bokk ci salle nan lay def ba jaar ba boobu. xam nga salle boo gis rek enseignants ah, yi ñoo koy doxal salle boo gis ci ya, àdduna ah, enseignants yi suñu wàññeekoo rek dootul dox enseignants ah, yi ñooy doxal salle noonu la demee nag mais macha allah ñuy sant yàlla bu baax. salle bi formé ay champion. alhamdulilah sant yàlla bu baax. maanaam ndax formé ay champion. waaw am ay formé nañ ko ku mel ni Bamba. Ya. champion bu mag la. bii passé moo ko jël et dañ koy ñaanal nag boo yi fi nekk ñëpp ñu leen di ñaanal ñu gën a yokk gën a gëm seen bopp nag te ñu ngi ci ba léegi gëm seen bopp noonu la demee nag waaw. ok Bamba. eh Bamba sikaral waay nga ne ma lan jagu doo teel ñu waay. Bamba yow lañ jox suñu cadeau wax non garaaw ba ko ma taal amul amul sax garaaw voilà wa mais yo vraiment ñoo ngi lay ñoo ngi lay gërëm di la sante quoi kena bi nga bàyyee sa yitté yëpp ñew and and ak ñun waaw ñëw nekk ci ci liggéey bi vraiment ñu ngi lay gërëm baax en même temps di gërëm ci directeur technique bu club muy Sansé Abou Sall muy directeur technique bi vraiment mo tamit ñu ngi koy gërëm bu baax di ko di ko ñaanal guddu fan wax dëgg wér-gu-yaram di ñaanal anciens yi jaar yu mus a jaar ci club yëpp vraiment ñu ngi leen di nuyu de passage ñoom ñëpp ah vraiment c'est-à-dire euh, karaté comme ni nga wax sànq Amadou karaté moom yombul quoi sa forme champion mooy yombul quoi waaw mais incha allah yàlla baax na voilà ñu ngi si liggéey boo xamante ni euh, xel dal na daal voilà yàlla baax